dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo ubbil yéen kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom na nag daat ñuy delloo buum sa mboy mboy gan ni ki démb ñoo ngi woon ci mbeddi ndakaaru njaay di séddale li nga xam ne mooy ay flyers journal bi nee na lu toll ci quarante mille flyers maanaam ñeen fukki junni ci ay flyers yoo xam ne ni ki démb daat nañ koy séddale ñi nga xam ne ñooy askan wi ngir nag sensibiliser leen maanaam yee ci lu jëm ci mbirum courant bi nga xam ne dañu ko daal di yokk yéen kaay gi mu ñu xamal lan moo ne day lu jëm ci wàllu wàllum séddalay flyers moo taxoon ñu tegoon leen loxo waaye nag ni ki démb commissaire bu Médina daal la mu leen xamal am ngeen sañ-sañ séddale ay flyers waaye bu leen dajaloo yéen a kaay gi mu ñu xamal nañu ñi xam ne ñooy police yi sax doon leen jox ci flyers yi bu yaana mar la mu xam le nee nag ñoom daal danañu wër mbeddi ndakaaru njaay yépp wax ak askanu Sénégal waaye nag bu ñu fa bàyyi ca palais ba jëm Simon bu yaana mar la a a ko sàccutoon jamono ji nag du leen fekk ñoom ci mbedd mi ndax booba kenn du am jotu sax di yokk li nga xam ne maanaam mooy courant bi journal bi ba tey ñi nga xam na ñooy collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag nee nañu Guy Marius Sagna mi nga xam ne moo nekk ci kaso bi lu toll ci fukk ak juróom benn ci ay millions de sénégalais la doon xeexal jamono ji nag kon kenn amul sañ-sañ maanaam daa di banque say loxo yéen a kaay gii di Sud Quotidien bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci mbirum njàng mi mu ñu xamal nañu mbootaay gi ëmb juróom-ñaari kuréel yi nga xam ne ëpp doole ci lu jëm ci mbirum njàng njàng meek njàngale mi ñu leen di woowee G7 ñoom nag ni ki démb ginnaaw bi ñu amalee ab débrayage tey ji nag danañu amal ab grève total waaye danañu amal ab marche journal bi mu ñu xamal naan ñu la ko waral nag ñoom nee na nañu la nga xam ne daal ay accord la woon maanaam ay déggoo seen diggante ak nguurug Sénégal gi ci boppam moo ko daal di respecté wul Cheikh Omar Anne mi nga xam ne moom lañ dénk njàng mu kawe mi moom nag day woon ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi ngir nag ñu daal di toog waxtaan waaye nag yooyu la jàngkat daal la ñu xamle nee nañu ñoom tay nañ damm nañ dee nañ ci bi nga xam xamante ni lépp loo xamante ni na naka bu ëllëgee daf cay daal di génn yéen a kaay gii di libération daal di dikk ci jàngalekat yi nga xam ne ñoo bokk ci SAES e tey jàngale ca CES e si ñoom nag ginnaaw bi ñu amalee ñetti fan yoo xamante ni ab débrayage ni ki démb nag seen assemblée générale ba daan nañ koy dàbbaliwaat ñetti fan yoo xam ne dañuy jàng ba ci digg ba daal di ka fay dagg wàcci la ko waral nag ñoom daal dañuy tuumaal njiitul CES e si na dafa joxe lu toll si juróom fukk ak ñaar ci ay attestation ay journaliste te loole nag tegu ko fenn yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu daal ñuy dikkal ci es scandale musiba mabakumba gu rëy goo xam ne dafa daal di am ca poste ca diwaanu Louga journal bi mu ñu xamal nañu directrice ba di wuyoo si turu Rokhaya Gaye moom nag moo daal di ngembal ngar dajjoo alalu askan wa lu toll ci deux cent soixante-quinze millions journal bi nee na àtte nañ ko ba tëj ko lu toll si juróomi ati kaso waaye nag du moom kese ndax ki nga xam ne moo toppoon ci moom di ab adjoint di wuyoo si turu Moussa Omar Ba moom nag tuumaal nañ ko ca googale ngembal ca googale turian ci lu toll si ñaari ati kaso moom la ko daal di tëj yéen a kaay groupe Ibrahima consulting bi moo xëy di ci dikk yéenekaay gi di Vox Populi ak L'As xëy nag ñu fekk fa Moustapha Diakhaté mi nga xam ne moo bokkoon ci parti bii di APR te ñu daal di koy dàq moom Moustapha Diakhaté daal di nay wax nee na commission discipline amul benn yoon ci parti bii nga xam ne moom mooy APR te kenn munu saa andi li nga xam ne mooy ay firnde Serigne Saliou Gueye di ab journaliste nekk ci yéenekaay gi di La Témoin moom nag la mu xamle nee na Moustapha Diakhaté dàq gi ñu ko dàq tegiwul ci yoon ndax commission discipline amul ci parti bi di APR journal bi di waa la mu xamle nee na en tout cas daal li am des ay ministre ak i député ak i maire yoo xam ne ànduñu ci dàq gi nga xamante ni dàq nañ ko Moustapha Diakhaté yéen kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal la ñu dëgg gi kay mooy ginnaaw bi ñu dàqee Moustapha Diakhaté ak léegi APR dafa daal di pëcc xoo jamono ji soréewul sax ak sabar gu tasa ndax mu Mouhamed Sow mi nga xam ne député la nekk président conseil départemental bu Nioro moom nag daat nay faral ki nga xam ne mooy Moustapha Diakhaté la mu xamle mooy commission discipline amul ci parti bi di APR te parti bi di APR nag Macky Sall ci boppam moo ko ngar Cheikh moom kese mooy wax moom kese mooy dindi te képp koo xam ne yaa ngi ci APR soo waxee dëgg ñu daal lay dàq moom Momat Sow jamono ji nag nee na pare na ngir ñu dàq ko ci bile parti di APR waaye nag ay dëggam daf koy wéy di wax Omar yu moom nag la mu xam ne nee mbir mi nag daf ko daal di ëlëm daf ko bouleversé Mbaye Ndiaye la mu xam ne nee na Moustapha Diakhaté ba léegi ni daal palaasam ma ngi ci parti bii di APR gi Ndong moom ministre la woon àndul benn yoon nag ci dàq gi nga xam ne dàq nañ ko Moustapha Diakhaté la mu xam ne daal mooy daje jamono ji nag waxtaan moom moo daal jot sëkk yéenekaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu réew mi jamono ji ci lu jëm ci mbirum ñàkku kaaraange ma ngi baax baaxi xëy daal di ñuy yóbbu diwaanu Kaolack mu ñu xamal naan ñu dafa am benn jeune américain koo xamante ni ab sénégalais la waaye nag dafa am nationalité américaine moom ak bàyyi ji daal ay samba buy ay wëyu ñoo leen daal di songu ba nga xamante ni nag daat nañ leen di gaaña ki nga xam ne mooy Mohamed moom dafa mujjee ñàkk bakkanam ci hôpital El Hadji Ibrahima Niass ba ca Kaolack waaye nag ñi nga xamante ni daal ay taalibe bàyyi lañ dañoo jàpp ne yooyu la médecin ak sàggante goo xam ne moom lañ ca daal di wane ba démb ñoom ñëpp ñu riiroon wuti la boobale hôpital ki nga xam ne nag mooy bàyyi ji moom jamono ji nag ma ngi ci guddi gu bët séddagul journal bi di Vox Populi moo xëy di ñu ko xamal ndax gaañ-gaañ moo metti lool waaye nag doom ji di Mohamed moom daat ne ñàkk bakkanam journal bi ne na Samba Boy jël nañ si ñooma lu toll si ñaar ci ay millions ak trois mil dollars américains journal bi nag daal di xëy wax moom libération ca garage boo maraîcher foofee nag ci bus yi nga xam ne ñooy jóge ca diwaanu Mali lu toll ci trois cent kilos yamba Ba la ñu sax daal teg loxo si yéen kaay gi di sunu lamb mu ñu xamanal ñu Papa Sow ginnaaw bi ñu ko dàqee ci écurie Fass moom nag daal nay taxawal ab écurie ca diwaanu Parcelles Assainies waaye nag ki nga xam ne mooy Bruce Lee di Patika di Franc ñooñu nag ay mbër lañ daal nañ koy fekki stade yéen kaay xëy nag ci Sadio Mané ak bii yi nga xam ne jot na ko dugal nee na lu toll ci téeméeri bi dugal na ko ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay match lu toll si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay bi yoo xam ne Sadio Mané dugal na ko ci Premier League te benn penalty bokku si gàcca nga laama